yëgle na ayam yaayam. ngemb dundu mooy ngemb Lagos bi dundu walo neex yaayam caaroy. ndeysaan am lu bis. yaayam wis. neex yaayam am lu wis. daa di raxasu. xool ko ba ma ngay kuy. man da dajale tuñu sax. neex yaayam dundu. neex yaayam nag niru na bëre tët. waaw bi jàkk na. tey takkul dara. day mel day bañ jaf nii. waaw dundu nag moom bii du. dundu na. waaw dundu bii du premier combat moom moom bëri na ay combat. bëri dundu bu waale. ndeysaan. ñaari xale yi. neex yaayam. lépp neex yaayam dundu. dundu neex yaayam. dama na ñëwaat ñu ngi lay too ndeysaan ñaari xale yi ndeysaan ñaari xale yi. demee nañu wet ku conga amagul. demee nañu wet. fexe leen ba def li fi seen i moroom def. ndeysaan xale yi bëre nañu lu neex ci combat yi passé. ñaari xale yi. du ndeeg neex yaayam. ndeysaan ñaari xale yi ñu ngi lay too. jàppante baaraam bàyyante. ndeysaan. demee nañu wet. neex yaayam ndaama la. te ndaama taamu naa ci song. walaay dëgg la. ndaama day song ndaama day riñaan. ndeysaan. ñaari xale yi. ñu lay too ba léegi. waaw waaw dara la am solo amagul. dañuy lay too rek dagg na lay too bi def déplacement du lu ànd ak moom. ndeysaan. ñaari xale yi ñu ngi lay too dundu ndeysaan ñaari xale yi ndeysaan jàppante bàyyante ndeysaan ñaari xale yi wax ak ñoom mais jaar bi wax ak yéen ndeysaan ñu leen xeexu leen dara dara amagul. dara amagul. dañuy natt rek di bàyyi. jàppante baaraam. waaw waaw xëy na ñu sooguñu. ndeysaan jaay jaay jaay sama gaay yi. ñaari xale yi. mais nag dundoo gi giree gi topp ko. ñoom. arbitre baa ngi ñoom. en direct sur la Sen TV. waaw nee na leen lii leen. bu dellu see du wax El Hadj Malick bu dellu see wax day joxe avertissement. waaw bu dellu see day joxe directement avertissement. waaw su boobaa du leen tooñ. avertissement verbal. mooy artu. waaw. neex yaa am sànni la neex yaa am sànni la génnaat. ndeysaan. neex yaa am neex yaa dundu. di bu waalo neex yaayam. caaro yi da ngay waaye talul. neex yaayam ak dundu. neex yaayam ak dundu. ah combat bi lew na gaay a cabaat ah. isaan. bi sedd na lool. xeexu leen bërewu leen pour ah dundu cokkaas teewaat loxoom. mbër mu ndaw daawul bëri calcul alaaj Malick. waaw neex yaa am jëm na doon waaw daa sori. ndaama la daa bëgg a daa bëgg a song nga koy gëdd. du doon ko taf. du ko taf ko taf door mi mooy. sa waay mu mooy. du ko taf. du doon yaayam. il faut secrétaire surveiller ko de près. ndeysaan door na dooraat. ndeysaan ñaari xale yi. Ndongo ak Neex Yaan. ndeysaan. Ndongo ko topp. Ndongo ko topp. Neex Yaan sànni. coup de dégagement. ko topp topp ko. Neex Yaan demul. ndeysaan teewaat na boppam. dundu neex yaayam dundu neex yaayam ndeysaan ñaari xale yi dundu neex yaayam dundu doom la neex yaayam di posté ci njaww ji ndeysaan ñaari xale yi dundu ak neex yaayam ñu ngi lew too ndeysaan ñaari xale yi Will ko taf ah sorxal na baaraam droite sorxal am na benn droite oh du ko do fay mu delloo ko ko bu nga jeex yaaram daw na jël ko daw na jël ko sentiré na ko du sentiré du du la jël ko ah daan na daan na ko daan na neex yaaram da do ma waalo ko waaw waalo am na ñaar daan na ko jël bu rëy Doudou daan na ko jël bu rëy noonu dund sànni léegi benn arrêt fay dund en ce dooraat beneen arrêt dooraat ko troisième coup bi daal di koy téye ca loxo ba nag tiroo ko topp ko léegi dund daal di replier neex yaa am doon ba coppet mu di ko mboot mais bërëkkat la mu jéggi mu enchaîné mboot mu mbaar mais da koy sulli ca suuf teq ko mu jaaxaat daanaka jël bu rëy. waaw Idrissa Sila Kër Sega moo ñu jox image yi.